macha allah ngeen gis nag tey waa restaurant mbégte mi macha allah plat yu am yi nga am solo yi nga xam ni moom la ñu euh, terale sunu gan gi te xam nga ni gan teral ak euh, teeru la rawatina ci restaurant mbégte mi ndax xam nga mbégte mi ku fi dugg ba génn rek macha allah da ngaa a amee mbégte euh, honorable Mara gis nga tiraanga yi nga xam ni waa restaurant mbégte mi moom lañ la indil tey ban commentaire nga ci def. waaw jërëjëf waa mbégte mi restaurant mbégte mi vraiment ça m'a dama ñëw ñu indi teraanga yu am solo yi te wax dëgg yàlla lekk bi seet na te ànd naag euh, xew ki koy indil vraiment mhm. ndax li ëpp solo ci ci lekk mooy ki la koy jox ak façon bi mu la koy joxe mhm. loolu marqué na ma ci aussi mhm. vraiment lu am solo la ñu di leen comme mbégte mi moom boo fi génnee da ngaa war a ànd ak mbégte mi boo fi nekkee ànd ak mbégte mi donc ndax am nga habitude daa fi ñëw non am mosuma am habitude man nag li may dem restaurant du. du du du mais désormais à partir aujourd'hui moom. da d'accord léegi moom à partir <laughs> d'aujourd'hui bu ma ñëwatee rek dinaa. Ah. ànd ak soxna si ma ñëw ah. restaurant restaurant vraiment fii moom. Uh-huh. macha allah yàlla na fi yàlla def xéewal. soo gisee ay doomi dëkk bi di góorgóorlu créer entreprise. itam léeg-léeg nga soxla sa bopp génn war a jënd yu sell te neex mhm. ay doomi dëkk bi créé li looy wax encouragé leen puis euh, ñi ci mën a jàpp ñu jàpp ci parce que bu nit defee investissement ba tool nii mhm. di ci employé doomi dëkk bi di ci yombalal dunduk doomi dëkk bi loolu mi ngi participer ci économique dëkk bi mi ngi participer ci économique réew mi mhm. donc ñi ñu mat a jàppale lan ñu mata euh, bàyyi xel lañ ndax tey bu doon vingt vingt personnes yi nga xam ne ñi ngi leen di te joxuñu leen woon ab emploi dañ koy wuti feneen donc euh, lii lu ñu war a gën a mën a jàpp la bu baax a baax. macha allah euh, merci beaucoup sunu gan aco Marème man nga ma jëlal micro boobu euh, rapidement rek Marème a ginnaaw la jaajëfalee gis na nag sànce bu jekk bi macha allah <laughs> tey nii nga teeroo sunu gan honorable Makhtar Mara Diop. Mm-hmm. aco ginnaaw buñ la bàyyee nga nuyoog sunu mbokku internet yi rapidement ndax mën nañ xam. Mm-hmm. Mm, li ngeen indi tey nu mu tudd buñ la bàyyee nga nuyoo pare. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant mhm. euh, di la jaajëfal yow mi Samb euh, di dalal suñu gan gi di sëñ Mara Diop mhm. gannaaw bu ma ko dalalee ba pare maa ngi lay présenté suñu plat yi mhm. tey euh, poulet pané lañ leen indil poulet pane Mhm. Euh, future restaurant big. ok euh, bu ngeen ko bëggee contacter sur le numéro. Mhm. Euh, mais parlons-nous ñuy dugg bala ñuy numéro parce que mhm. plat solo. restaurant Bictemi yi rek lay non non du tout am y différents plats. comme poulet. si kebab tamit. poulet dibi ci Père Mbaye sama copain. dibi poulet <laughs> dibi viande il y a aussi poisson grillé. On a aussi qui, nous dit, comment dirais-je, poulet, poulet sauter, euh, michui. On a aussi euh,

te xëy sa jot du la may. ah, bëgg ñu restaurant mbégte mi. Mhm. te amoo jot pour ñëw ndax dafa am ay numéro yo woté wala dafa am ay livreur yo xam ñoo lay indi wala. si am nañ livraison dañ lay livrer à domicile. Euh, ba foo mënti nekk. Hmm. boo boo soxlaawee rek ak loo mënti soxla dañ lay fekk ba fi nga nekk. ci ban numéro ci ban numéro nag nga leen mën a jote te numéro bi nag ko jël sa temps parce que ñi sant Mbaye ak Mbuub ak Cissé ak Lo xam naa lii dañ leen intéressé. aco ban numéro nga leen euh, mën a jote waa restaurant Mbégte bi. bu ngeen ñu bëggee jot mën ngeen ñu woo si 78. 78 105. 105 95. 95 95. 95 waxaat ko doyelu ma. 78. 105. 95. 95. merci beaucoup Mariam. merci bakkan dawal nga ñëw restaurant mbégte mi ndax fii la mbégte mi ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbégte mu dul jeex la neem heure bu ni addu ngeen di teewlu euh, ñi ngi nuyu ñëpp tey ziyaar ñëpp suñu nuyu suñu ziyaar njiital Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal gudd fan lool bànd ak euh, wér-gu-yaram noonu itam lañ koy ñaanal Serigne Moustapha ko ñaanal gudd fan lool bu ànd ak waaye di ñaanal képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi di ñaanal ndam ak xam ngeen nag bu ñuy addu ngeen di teewlu mbégte rek la neen waaye sunu première édition muy numéro bu njëkk ci restaurant mbégte mi ndax xam nga baaxoo ngeen di ñu topp ci yeneen restaurant waaye nag tey ñu fii ci restaurant mbégte mi kon xam leen ni ganu mbégte mi moom la ñuy addoo nii numéro bu njëkk bi nag ñu am ci koo xamante ni si macha allah euh, xarit la ci kër gi waaye itam euh, taxawaayam ak ay engagement am tax sunu première numéro ñu tànn ko muy Mara Diop sëñ Mara ginnaaw bu jaajëfale li nga wuy sunu invitation ci murid point info premier numéro ganu mbégte mi ñu bàyyi la nga nuyu suñu mbokku internet laataa ñu dugg ci jataay bi. jërëjëf auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, ginnaaw bi ñu jullee ci yonent sant Serigne Touba ñu ngi sant Serigne taxa Bachir borom mbégte mi. ñu dalal ma ci mbégte mi. Mhm. loolu yaakaar naa Murit info. Mhm. dal ko mooy ñetti fànn yoo xam ne ndax bu ne Murit. waaw ni mbégte ni mbégte. sëñ Muntaxa ne sëñ Muntaxa taareex lay doon. <laughs> waaw ah, ñu njëkk ma ci dalal nag loolu mbégte lay ànd ak man ñu wax dëgg yàlla ma di ci sant bu baax Murit info ak staff bi ñu àndal yëpp di sant it euh, mboolem ku nga xam ne euh, yaa ngi ci mbégte mi di ci liggéey di sant propriétaire mbégte mi. di wax ne mbégte mi euh, méngoo naag émission bi. Mhm. di sant mboolem euh, région de Diourbel man naa ne département de Mbacké surtout département de Diourbel gi nga xam ne foofu laa dëkk muy département bu ñu bu ñuy sagoo waaye rawatina ndindi gi nga xam ne euh, sama siiru noo ndindi la. Mhm. man damay faral di wax ne. Euh, lépp mbubb mu rafet sax bu ma ko amee mhm. bala may am la ma gënal damay dem ba biir ndindi sol ko nit ñi gis ko ma doo a dem daloo ko feneen macha allah donc muy euh, am solo sëñ Mara ku la woo tudd sa dëkk mhm. Mara Diom Ndindi mhm. muy ñaari liaison yoo xam te dafa taqaloo ci tur bi macha allah Mara Diom Ndindi boo ñu doon présenté ñi nga xam ñi ngi dégg Ndindi te xam ñu Ndindi fan la Ndindi exact ci nekk ci Sénégal la ñuy wax jërëjëf Ndindi mi ngi ci département de Diourbel mi ngi ci région de Diourbel d'abord nekk ci département de Diourbel nek ci arrondissement de ndindi ndindi di chef lieu d'arrondissement bi tax parce que boy wax ndindi euh, arrondissement département Djourbel arrondissement ndindi la ak arrondissement Ndoula mm. ak la commune de Djourbel ñom ñoo seq département bi arrondissement ndindi don 6 communes man ci commune chef lieu communal bi ci la deuk euh, muy 25 km de Djourbel di 45 km de Touba nek nak ci digg Sénégal ñu bari xamuñu ne Ndindi ñun. ñu ngi ci mm. digg Sénégal. tey booy xool ci fànn bii li nga ciy daw ak ci fànn bee ak ci. Kajoor Bawol euh, yàlla lay defi ñu nekk ci diggante euh, Kajoor ak Bawol. Euh, ñu bari dañ doon wax naan frontière Kajoor ak Bawol ñu Ndindi la ak ñu frontière ak Daaru Musi frontière ak ak ak ak ak Cilmaxa. Ah, ndax diggante yooyu mooy Kajoor ak Bawol. Ah. ndax foofu it euh, taarix yu bari ci histoire euh, Serigne Touba def fa lu am solo loo xam ne jaar na fa xasida gi ni wax nooru daaree ni fa la ko sëriñ bi tàmbalee fa la ko yeggalee. Mm, guy googu ba tey ma nga fa. te mm. loolu la Cheikh Sidi Muxtaar doon dox ay tànk di xeeñtu sëriñ bi ba am fa kër. Mm. Euh, man tabaxal naa ko fa kër goo xam ne man maa ko tabax ci sama moyen bopp. sëñ Sidi Muxtaar Muxtaar mu sant ma ko mu doonoon suñuy teenay bàyyi ak suñuy teenay dëkkandoo. ñu boole yépp jox ko ko addiya ñu sant ma ko ne ma tabaxal ma ko hmm. ma defar ko ba mu àgg jébbal ko ko hmm. donc nindi mi ngi noonu ci plan euh, politique nag da ci am solo ci département Diourbel hmm. rawatina région de Diourbel parce que nindi booy seet histoire politique boo xam booy dégg ci département Diourbel rek boo jeexee da nga ciy fekk nindi. Euh, tey ci fànn yu bari ndax da ngay gis ne tey euh, amoon na ci temps élection bu jot ci temps élection bu jot di nga ciy gis ne taarix daf fi am ndax tey euh, amoon na ci temps Ablaye Wade ñu folklore woon liste député yu Ablaye Wade te jamono boobu Aminata Tall moo fa nekkoon comme leader du département mais ndindi dañu dañu dañu dañu amoon député ñun ndindi mosuñu ñàkk député. élection législative bu jot. am ngeen am député boo xam ne dina jógee Ndindi dem assemblée nationale. Hmm. que ce soit nu mu mën di xamee. te te assemblée taxul Ndindi siiw fa. parce que c'est rare ngay dégg. waaw mais loolu taxawaayu yenn <laughs> député yi nga xam ne euh, seen i seen i taxawaay la mais nag euh, wax dëgg yàlla booy xool ci histoire politique mag ñi ko xam. ci Sénégal. Mhm. booy dugg Bawol faaw nga tudd ci Ndindi. faaw nga tudd ci Ndindi faaw nga tudd ci Ndindi ñëw ci Ndindi ci gën a yaatal waaye sëñ Mara yaa ngi koy wax sànq ci présentation beeg sa taxawaay yu mel noonu mu nekk taxawaay boo xam te macha allah ci politique beeg yu mel mais yaa ngi tudd sànq euh, Cheikh euh, Sidil Moukhtar Mbacké mhm. nga xam ne nekkoon na jëwri nii Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye nekkoon na jëwri nii tam sëñ Touba mhm. euh, kon Mara bu ma ko dee dégg ci tur bi mu amee terewut dafa dafa dafa lëkkaloo kilifa diine yi ndax Mara personne bi kilifa diine yi kon ñoo ko inspiré wala ñoo dafa am ndigalul dugg ci politique wala sa tërë kilifa diine yi dafa lëkkaloo laataa ngay dugg ci politique. Hmm. laa judd <laughs> donc ci politique laa judd sama papa nag daf doon dalal kilifa yi gu mën a jóge. Hmm. ci Touba. ci nar yi bo sama dëkk suñu kër ngay wacc loolu taxna ba suñu wa kër sama papa dafa jël ñenn ñi jox ay sër ay sëriñu mi mu bokkalon jël ñenn ñi man à l'âge de sept ans mu jox ma Cheikh Sidi mukhtar ma di sant di gis nga di wax ci émission mm-hmm. di di wax ci mom ndax di bolé ak lenen daf may daf may yóbbu fa sori man jëmm lim ma defal ci aduna nit duma ko defal kenen duma ko defal dara rëyut sama beut nak Cheikh Sidi mukhtar ndax dama juddu ndindi suni imam di ci addo ci genn wet ci genen wet gi suni imamit aussi di ay jàngalekate alxuraan mu mu juddo ci digeunte bobu mu xaw doy war lo xam mak xam si xam mak xam si <laughs> yalla def Cheikh Sidi mukhtar ñew ndindi serigne sama papa jébbal ma boba mi ngi yar legatu serigne bara te bobu yorogul legatu legatub bal baar ba yalla def mu yoro legatu sëñ baar ba yalla def mu yor këllub sëriñ Touba. Hmm. wax du wax du xod la xod la. euh bimu ñewé nit ni bu ñu dimanche par dimanche la fa daa ñew ñu daa dem ci kër gi mu daa nek fofu di fa fek ñi ñu ñuy di di di ñoy attaaye attaaye ji dalal gan ñi tay wuti nit ñi indi leen tak ba yalla def serigne bi ne dafa sakku wut kër fofu serigne bi sama papa wutul ko fa kër bu ko fa wutee kër mu jël ma taf ma ca kër gogo hmm. def ma loxom def ma nday jooram def ma lepp doylo ma ci côté bu né lu jëmono yëngutu won yëngutu won yëngutu buma togué ak Cheikh Sidi mu deyenté waxanté xalat dana ci bayyi xel ci loolu yalla defit ñuy dox di dox di dox di dox bom don doon khalifa seigne Tuubaa hmm. mu ne ma dama bëggoon nga bayyi nit ni nga ñëw fi ci wet kër gi ci sama wet ndax bu doon dox bu tuuti def nga ko. xamante nga kilifa yu bari yuy ñëw leen te ci kër gi nga di leen teete di leen indi ci kër gi di leen indi ci man responsable kilifa gu fi mos a ñëw muy autorité man maa lay dalal ba nga war a gis sëñ bi ma yóbbu ci sëñ bi. Hmm. loolu it yàlla def na it ci kër gi sama connaissance bu bari ci kër gi ci laa ci la ci lañ amee yàlla def it ma xamante fa ak jëmm ju ñuy wax Ousmane Masseck Ndiaye muy sama xarit di sama lépp moom it sëriñ bi boole ñu mu def ma comme doomam. bari na ay autorités yoo xam ne bi ñu déggee ne sëñ Cheikh Mat Leye doon na xalif général de des Mourides Ousmane Masseck lañ gënoon a xam ci wàllu yëngutu ndax mm-hmm. doo mu kër gi la woon. Mm-hmm. képp ku daa ñëw ci kër gi Ousmane danaa def naan demal ci Mara mu yóbbu la ba ci gi foofu la ñu ci kër Ousmane Masseck laa xamante président de la République. Mm-hmm. booba mi ngi PDS di comme tout le monde. booba mi ngi directeur euh, defe naa directeur Petrosen. Ah. bu ma si si je yàlla def it aussi diggante boobu mu doon diggante bu yàgg kër Seex Sidi Muxtaar tàggat ma jox ma beneen yar boo xam ne nii tey sëriñ bi daf daa wax ne ab taalibe day yar boppam ba ku ko séen muy wéy nga bëgg a jaxasoog moom boo jaxasoog moom boo néeg tàggook moom da ngay a tàggoog moom hmm. loolu ma di ko jàngee ci sëriñ bi ba tax na euh, loolu li ma jàngee ci moom lépp dafa am solo dafa bari ay valeur moo tax politique bi duma ma fëkk ci benn côté. lu àdduna yëngutu yëngutu yëngutu. Mhm. mën na maa garder sama dignité toog xam fa ma jëm. macha allah ci wàllu politique muy lu am solo tey ñi ngi am euh, Mara Diop nekk euh, itam conseiller technique euh, ci li nga xam te moom mooy. membre du conseil économique et social environnemental. très bien euh, Alaaji Maxtaar muy lu am solo yaa ngi koy wax sànq ci présentation beeg yaatal geek sa digganteeg Cheikh euh, Sidi Muxtaar ñu koy ñaanal yaa suñu borom yokk ay leer mag yu mel noonu. yaa ngi wax sànq itam sa présentation daal sa waajur wu góor nekkoon na euh, responsable politique. PS. Mhm. kon yow lan moo la dugal ci politique ba tax nga bàyyi fa PS depuis jamonoy dekkal ngor nga nekk APR yow. waaw effectivement man nag sama waajur wu góor PS la mos a nekk mais man mosuma milité PS. parce que dama da gis ñom ñepp leader PS euh ma ngi fatlikou meeting di siècle bi ñu def bi PS mujjé def dans la région dindi la ko defee Ousmane Tanor Dieng mo ñew présidé ko bi Ousmane Tanor Dieng ñewé présidé ko kër gu ne maa ngi fàttaliku booba xalé bu tuti la nak lañ faray nit ñepp ñew ma da gis sama papa nim da japp li nit ñi di génn diko joxé mané man dal politique bi PS def dama ko xép booba it ki jur sama tante mom mo fa nekkone representant PDS te mom mom la gënonu a ke sama papa muy Allah job gor gi Allah job Yalla na Yalla yàlla yërëm te yeexañu membre la won bo xam ne Abdoulaye da di ko ndindi ndindi lu bu bu bu am solo la. Mm. amul benn président bo xamne da nga tok ci rew mi xana ki fi tok japp ne rek mom ndindi. Mm-hmm. mais amul benn président bo xamne da nga tok ci rew mi te go sa tank dox ba ñew bi ndindi sama maam moo doonoon représentant PDS fofu pedes neex ma ma daa gis ñoom ñi ñuy doxee man aussi bi yàlla defee ma am lanteeg Ousmane Masek am lanteeg kii dama fi dama ne man bu may minité pedes laay minité. PDS laay minité mais bi mu minité pedes. kon léegi kër goo xam ne ñaari. ñaar waaw ndax loolu moom taarix la suñu kër samay mag dañu doon dañu féete ba tey jii fi mu toll nii may wax ak yow. Euh, ñi nekk parti socialiste suñu kër. Hmm. sama mag danaan man sama papa maay sama xalifa papa du ma génn parti socialiste. Hmm, mais ñeneen kër gi ñu ci des ñëpp affaire lañ bok donc tarikh boobu batay mi ngi ci da da day neex nak keur go xamne ne dam bu ñu campagne ba ngon jot ñu diké dañuy dañuy dañuy dañuy sanante xeer waaw sanante xeer malgré que mom coalition bi bokku ci won parce que dafa dem ci Khalifa Sall mom la andu mm-hmm. àndutoon ak euh, euh, ci coalition bi sama mag bobu muy bara mm-hmm. donc don la non la man nak bi bi PDS génnee bi Macky Sall génnee PDS dama génn àndal dama yóbbaale dama yóbbaale parce que. wanoon na première heure nga. effectivement ñu ci bari ndax bari na maa ngi ku dekkal ngor sat conseil yi ñu njëkk am ci conseil euh, ci ci ci conseil régional. Mhm. Euh, campagne électorale ba ñu def nit maa leen doon jàppale ci lañ ko doon defee. donc ay booba Adama Sarr booba fii Matar Diop lañ fi gis Moustapha Cissé Lo ak Maguette Diakhaté. ñooñu ñooñu laa gënoon a miin ci parti bi ak Laat Seck Sadaga. am na ci lu bari loo xam ne nii tey président sama am lanteeg moom séq nañ ko ak ay kilifa yu nga xam ne ñu ngi ci biir parti bi yoo xam ne euh, euh, am na loo xam ne taxaw nañ ko ci wetu par exemple mu mu mu taxaw parti bi euh, bu ñu mosaane jaaxle ci lu bari. Mm-hmm. au niveau waxuma la au niveau local mais au niveau de la région xamoon nañ sama diggante ak président Macky Sall ba danaan daanaan ma ci wax. daanaan la wax waaw part loolu mbégte mi ngi ciy am ak satisfaction bi nga jàpp ni am nga ko parce que président reconnaître na la lan la la parti bi servir ci biir ndindi goo xam di nga mën a yëkkati sa loxo nii ci nguuru président euh, Macky Sall ndindi amee li ndax euh, am wax nga ma question boo xam ne li ma gën a fier ci Sénégal loolu bokk na ci ndax dama jàpp ne booy politique dëgg la. dangay am da nga am da nga xalaat ne tay ki ngay politigal hmm. dina la amal reconnaissance muy ben bo ci am solo mais nak di nga am au retour lo servir sa deuk effectivement parce que lolu motax ñu ñuy day jeex ndax day jeex euh, damay faral di wax ne ndindi euh, ba fa déggol joggé hmm. ci walu infrastructure hmm. Macky Sall moo fa fek ci wat muy lu garaaw yag na di ba fa déggol déggol ci tubaab bi parce que ñun biñuy défar rara bi joggé ndindi jëm dem bi joggé ndindi jëm boobu Macky Sall rek a ko defaraat te tubaab yi ñoo ko defaroon. diggante njaareem ak ndindi vingt cinq kilomètres la xam nga ñaata temps nga ko daa def. Hmm. deux heures de temps wala trois heures de temps. vingt cinq kilomètres vingt cinq kilomètres deux heures de temps wala trois heures tey boo jógee njaareem jëm ndindi bu la neexee quinze minutes nga dugg biir ndindi goudron la président Macky Sall moo ko def nga xam ne keroog ba Senghor ñëwee wàccee ndindi ñu di ko ñaan ne ko dañu soxla hôpital. dañu solo goudron dañe ah goudron du ngeen ko gawa am seeni seut seeni sëtaat dinañu dund te du ngeen ko am parce que yeen bu ngeen dajale li ngeen di fay lepp ci impôt matul len sax ben ben ben ben ben ben ben mètre bu goudron parce que sangon nitu deug la won boko waxe da lay wax ni manam ta politique parti bu fi jaar ndindi servir na servir bo xamne da nga japp ne ndindi rek mo la mossa mo la mossa servir PDS bi mu jowe lu ne defal na ko Ndindi defal na ko député yëf a ñëw di Badiane moo doonoon député bi euh, dëkk biir Ndindi doonoon président conseil euh, rural bi ñu servir ko lu ne do ba jamono Socéña boo déggee Socéña. Mm. Ndindi la dëkk général may saña Ndindi la dëkk. ñooñu ñëpp Ndindi lañ dëkk tey ay kàngam yu bare bare bari ñu ngi dëkk biir Ndindi yoo xam ne ni tey servir nañ yàlla defit aussi président Macky bi mu ñëwee infrastructure amuñu ci woon dara 2012 dama koy faral di wax bi président Macky di ñëw. école primaire lañ yoroon boo xam ne six classes la woon boo masaan jàng ba am certificat da ngay dem Jurbel dangay xool population nit ñi ni mu bëree nga jël li nga jël liy examen liy jàng am euh, diplôme yëpp nga yóbbu Jurbel soit ñetti kër ba ñeenti kër nga fay xam dugal fa yenn boy yi ñu ci bari seenum jàng foofu lay kawate yàqu. Mm. léegi am nañ CM léegi am nañ centre de formation professionnelle de dernière génération. loolu yëpp ci nguuru Macky Sall lañ ko amee CEM bi ci nguuru Macky Sall centre de formation professionnelle de dernière génération occupé ci nguuru Macky Sall barki dem daam Diop moo ko fi def ñu wëlbati ko ñu am goudron boo xam ne jóge na Ndindi ba ñëw bi jóge na Diourbel ba ñëw Ndindi ñu ku tey kero bi président 2012 benn dëkk moo amoon courant ci biir pré ci biir Ndindi muy courant bi jóge woon Ndula jaar dànq seen ñëw Ndindi bi muy jaar dànq seen benn commune ci ci ci benn commune la fi jaar la benn dëkk bu bokk ci biir ndindi muy layaabe ak ngay ngay ngay ngay ci dànq seen la bokk layaabe rek biir ndindi tey fii may lay waxal sur les quarante trois villages quarante trois villages. presque les vingt huit villages yëpp am nañ courant yeneen yi ci des yëpp installé nañ courant bi ba. taar rek moo ci des. su ma nekk lool. donc loolu loolu aussi. parce que satisfaction bi dama lay dama pareegu ma parce que pareegu tay ñun hôpital dispensaire dispensaire lañ amone tay gis am nañ district sanitaire gendarmerie amuñu ko won. tay am nañ gendarmerie bu bu bu bu bu bu bu moderne tay bo xamné ne commandant ma nga fa équiper nañ ko équipement beeg yépp ñépp nga fa ñu wëlbatiku amuñu won anida yi nga xamné ne koy défar tay dañ da def dimanche ba dimanche nga da gis nit jënd jënd ay légumes yi nga xam ne moom la ñuy utiliser. Mhm. tey heure bu la neexee da ngay yeewu 9h dem ca projet ANIDA ba yóbbu sa 1000 francs ndugg sa sa sew ba mu fees mhm. gàddu dem grâce au président Macky Sall. ñu wëlbatiku des de. ñu am daara moderne moo xam ne parce que nit ñi nag dañu bokk ci ñi nga xam ne tey dañu bëgg di jàngal seeni doom yi alxuraan. Mm. ñu am daara moderne boo xam ne de dernière génération ma nga fa terrain football ma nga fa donc ñu équipé li nga xam ne mooy. Euh, moy moy moy moy moy moy sous préfecture bi défarat ko bu bees donc lolu yëpp tay boy dugg ni dañ naan xalé yi sax dañ may togn naan ma Macky Sall def na deuxième jam ñaajo comme dindi donc kon yooyu yëpp ci président Macky Sall lañ ko am dafa bax ci boy top président de la république mu am lu mu la mën servir effectivement wëlbatiku man hmm. bokk naa ci à 1960 ba léegi ben décret présidentiel mo mos a dugg biir dindi muy sama jëmm ji 1960 ba léegi. Hmm. donc kon ba mu defee infrastructure yi ci àpp dafa def infrastructure humaine mooy jàppale nit ki ba mu mën a. Ah, demal nga nekk avocat ba ku tudd président Macky Sall yow doo xool tuddee da ngaa a jóg di ko. parce que li ma seet li ma doon yaakaar ci moom en tant que président daf ma ko defal sama dëkk. tey aussi dama jàpp ne c'est président président bi ëpp solo bi gën a bi gën a defar bi ñu doon yaakaar ne lii war na koo mën a doxale ci réew mi ndoonu mu def ndindi du ndindi rek de. boo duggee dans le département de Diourbel tey foo foofu ci dem da ngay joxoon ne président Macky moo ko ci def loolu nag boo amee président bu mel noonu da nga ko war ak aar yiir ko yàgg sagral ko ba kenn euh, la ñuy topp tey ci ak ñu ànd ak mooy euh, Mara Diop sëñ Mara xam naa li nga euh, defal taarix moom ci président Macky moom bu koy seetaanoon dina la bu fekkoon mi ngi fi dina la dolli nit mën a teg ba di itam loolu macha allah parce que loolu rek la ñuy doyee état maanaam nit ki di la topp nga bàyyi ko xel waaye legi gis nañ ni bi nga xam te ne que nguuram mi ngi jeex mu leer ko ni legi legi dafa bëgg a kaddom parce que dafa wax ne du def troisième mandat ayam jeexna mais dafa jëloon soam def ko ci ki nga xam moy mooy euh, Amadou Ba yow ci ban soa nga àndoon da nga andon ci bimu mu jëfee Amadou Ba wala da nga demone ci ñeneen ñi pour toog déglu parce que ñu ëpp ci ñu parti bi lañu bok mais bimu mu jëfee soa Amadou Ba campagne ñu demuñu merci beaucoup ci question boobu dafa am solo parce que it aussi euh, man dama bokkul ci ñi nga xam ne nii tey suñ ne weex na mën a tàll buñ ne ñuul na mën a kukk lu may xool lu ne dama ci sóoraale environnement bi ma dëkk muy bawol hmm. dama ci sóoraale lan lay ki fii ñëw di mën a indil comme ni ko président de la république defaloon muy sama dëkk ba tax na bi ñuy tànn président am am bi ñuy tànn président de la république bi mu taxawee def son déclaration boo xam ne ni tey jàpp naa ne à travers le monde entier ñëpp a ko rafetlu muy dama waxoon ak sénégalais yi ne leen bu sama ñaaree mandat jeexee damay dem. Mhm. ba mu ko defee seen daje na man bokkuma seen. Mhm. am na ñu ne bañ toogee seen neneen président koo tànn baax na doyloo nañ ko man bañ ca interview ba ma ci njëkka a defee dama ne ah man day doxewuma noonu président ku mu tànn dañuy xool lan la mën a defal suñu dëkk dañuy xool lan la mën a jëfal suñu réew dañuy xool lan la mën a jëfal suñu département ñu ànd ak moom. du question nag que ne président kii laa tànn kooku rek damay gëm ne kooku rek laa tànn déedéet. ndax président de la république. jàpp naa ne tey la ñu ëppal solo ca moom mooy que ëllëg ki si biir bu ñu demee ba nga xam ne nii tànn na nit nit kookee mu tànn dana mën a xam famille kenn ku ne ci kii lan la représenter ci famille bi kii lan la mën a mën a def ci famille bi kee mën la mën a def ci famille bi loolu dama ko réclamer ba tey tel n'était pas le cas parce que boo doon jàpp tey bu ma ko nëbbu Amadou Ba euh, xamutoon ñu bari ci parti bi. loolu erreur la woon aussi. Mm-hmm. tey dama daa faral di wax ne Macky su fekkee li bëgg ci moom. waru na war na mën a continuer képp ku ñuy jox parti bi na doon ku ñu xam képp kuy jox parti bi na doon koo xam ne bu demee ba fongale mi dina xam fongale mi. ban mais meilleur choix kay comme comme meilleur moo ne woon meilleur choix bi kay nekk. non mais mais ban dama dama dàq ñu ne meilleur choix. meilleur choix ko wax man na ko président président bu ne meilleur choix dama dàq ne meilleur choix meilleur choix c'était pas que dañuy toog ci biirum ne tey génn naan ne diw mii mooy meilleur choix. tey la waroon la waroon a am dama ko daa xeex ne man ndax man à chaque fois li may wax li may wax nii à chaque fois dama naan politique buñ ca dooree. bul jàpp ne nit kii méngoo na lii ci pol déedéet nañ ko jëlee ca au sommet tey muy rampe ba ñëw au niveau national bu demee au niveau national boo ko tegee day am ndam. waye tak bu fekke da nga parasiter nit jëlee ko fenn rek indi ko sans autant que euh, sommet bo xamuñu ko euh, euh, sommet ba ci base ba xamuñu ko nga bëgg koo yóbbu imposer ko au niveau national problème day am. il nous a arrivé ça kon yow su ma la ñi waté sanction ci nga bok man waté wu ma sanction ndax duma duma duma kuy waté sanction lu gëmu dama nan gëmu mako biñu togué ba président de la république wax ma né ma dama bëggoon nga dem japp ci ci ci ci liggéey bi dama né ko carrément inshallah yow la yow ni nga ma ñaané wax ma ne ma jàppal ci liggéey bi dina ci japp ci côté bama ma wara japp taxaw na wax naa samay nit ne len dem vote ji mais nak lenen la ca des président nit di nak dañ nan la dula takal wolof danan nit dula takal jabar defal lako la ca des ci waxi sutura mhm. bu la jabar yaay set effort ya nga efor mom lay wara def da nga japp defu effort de dama ne nit candidat bi biñ ko bi ko defé muy candidat li waron takal nañ ko li waron pour yenen responsable mhm. yenen militant yenen mu jëfe ko mais def na ko ñoo ko ñoo ko jàpp xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga foofu it dinañ ci bay ndax du Ba dafa amoon estafam boo xam ne daf ko tegoon. waaw te estaf boobu lu ko gën a yàqal ca la bokk ndax day boo dikkee supposons tey nga ñëw njaareem ñu ne coordonnateur département mu ngi nii nga ñëw nit ñi ñu ne ah responsable de l'APR amul contesté amul kenn dë. ka gën a tuuti ci parti bi soo demee ne ko Mara ne ko kan mooy responsable de l'APR bu nii ni danaan la Mara Diop nga bëgg ko fee jéggi dem seeti ñeneen ñooy corroboré loolu ci wàllu politique sama papa dafa ma daa wax ne mhm. bu la nit pesee ci bii leex tontu ko ci bii leex bu ko jox bii leex da ngay fayu mu du ñu voté sanction mais am nañ am nañ plein droit. guerre politique bi mu am mais guerre politique boobu moo ñu indi moo ñu indi ñu perte nguur campagne ñëpp xam ne daa nga ci terrain bi di takk yi. di def tuur yi da gis nga bi élection jubee dama ne leen. bi élection jubee nañu xool sama vidéo yëpp dama ne leen la ma Macky Sall jaraloon kenn wanaguma lu jar loolu. du ma génn parti bi waxee wolof la ma génn parti bi. lu parti bi de déggoo li ma la déggoo li ma la ma ne leen du ma génn parti bi. Hmm. ci parti bi laay toog ci lay dox ci lay wax waye nak lepp lo xamne jarna ñi ñu jox parti bi ñu def ko hmm. ñom ñoy jox ci ri nit ñi hmm. gis nga politique hmm. yëg la Yeah. soo nit ki tok fi nga tok nan dara nu gagné. da ngay nax sa bop da ngay wacc ci base bi dem wax ak nit ñi pour mëna a légui léegi tefoon nañ ko mir choix amna ñu d'accord accord ni du mir choix bi def na ci lu ni daj na lu ni malheureusement mu jul gagné parce que 35 rek la mën légui mu na léegi bayina affaire bayina len ko ëllëgu affaire fo japp ni légui fa la jëm parce que ki ngeen japp ni moy numéro 2. wala boog mooy chef de l'opposition parce que moo fi taxawoon léegi moom quitté na APR léegi ëllëgu APR. gisaguma officiellement maa ngi koy gis maa ngi koy dégg gisaguma officiellement mu ne ñu ne ñu ne mu ne bàyyi na parti dafa gu ko déclaration ay estafam ñi ko wër dégg naa ñu di ko wax. ay sources yu jege ay sources yu jege dégg naa ñu di ko wax mais nag may may ma ci ma leen di wax ne leen APR. Hmm. bu kenn jàpp ne am nga poids mise boo jàpp ne tey boo fa génnee dina sentir dara ci APR addi politiciens nak addition la wax maanaam bul nangou kenn ku guen waaw mais nak amna na génnin goo xam ne boo hmm. nit ñi sétane la. mais moom guen géef guna la lancé. wa ma d'accord nako guen gi gis nga gis nga ki ñi gëm APR ba tay sama genre yi gëm APR ba tay hmm. gëmunu Amadou Ba APR la ñu gëm. sama man dama naan APR association la Macky Sall sax ëppale wu ma ci. ndax Macky Sall da da tek candidat ndindi nde forcé ne candidat bi manako duma and ak yow ci candidat bobu candidat bi lay andal, parce que bi la waa APR wax. donc kon loolu Amadou Ba bu génnee dañ koy jàppe comme un adversaire politique jàkkaarloog moom wa def moom ni ñuy def ak moom ñeneen ñi na bu boobaa nag na assumer ay responsabilités. mais boobaa APR tas opposition. mais APR mënut a tas. Ah, opposition lañ nekk déglu APR. Ah. APR mënut a tas. xam nga mën nga mer nga génn dem. parce que nous gëm le président président du parti. nous dañu def congrès. wa dégluma dañu def congrès. congrès devant tout le monde ñu dajé mhm. ñu né Amadou Ba ci parti bi dañuy jël responsable mu du parti élection mais congrès le président Maxal reste le président du parti. président Macky Sall mhm. ba sun jonne tay ji may wax congrès génné guko pour mu joggé ci président du parti il reste le président du parti da nga japp ni bis mëna wat mu ñëwaat bu ko nexé bis mëna wat mu ñëwaat lool du problème bu boba bu diggé fekk fi wa per la war ci ñu na suñu digënté mom ñu def ko bu keneen nak génné taxawal né na ne man bokkatuma APR koka dañ koy l'essentiel né jamarlo mom comme ni ñi jamarlo ñeneen ni ñaata nit ñoo fi génn APR te yëngalut APR. mais bokkul parce que boobu defuñu ko soit candidat. mais soit candidat déggool ma Mimi Mimi Touré dafa Mimi demu fi élection indil ñu li mu fi indi ci député. ba mu de ba génnee APR lan la lan benn la rek. Ah, benn la benn la benn tey dama jàpp ne trente euh, trente six pour cent yooyu ñuy wax. Hmm. bu mu jàpp ne moom la. Amadou Ba li muy seul mënut am deux pour cent. Amadou Ba li mën 2 élection hmm. élection. Hmm. kenn ko ne xam nag man sa baay waaye buy bëreeg sa baay. Hmm. da naan da sagal sa baay rek ne sa baay a man. <laughs> Euh, macha allah muy lu am solo euh, sëñ Mara gis nañu itam département bi même sax région bi dañu am catu njiit. depuis suñu papa Moustapha Cissé Lo jóge fi naa da ngeen ñu ko baal ba fi papa Moustapha Cissé Lo jóge ba nag ni maanaam parti bi amul amul coordonnateur amul sax mën naa ni régional gisoon hmm. itam li leen gën a empêché ba mën leen a dem ci nga dikku leen baylaar loolu ci la bokk. waaw loolu effectivement ndax après euh, sama papa Moustapha Cissé loo ma di ko rendre hommage di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bi mu daa taxaw ci parti bi euh, bu ful la jotee mu wane ko bu taxaw jot jàppale ñenn ñi jotee mu wane ko jàppale ne fi ku ne nag wax dëgg yàlla. Hmm. tey it daawut wu yërëm waxam ci wetu président Macky Sall gis nga nit ki boo àndee moom séminé. Hmm. njariñ li da ngay mën a taxaw jàmmaarloog moom pour njariñ loolu reste ci biir parti bi mu Cissé Lo am naa ci moment boo xam ne kay kenn du tudd parti bi dans la région. Mhm. te waxoo ko loolu it handicapé nañu ci bari mais booba it président Macky Sall dafa taxaw assumer ay responsabilités am daan ne mag président Cissé Lo mhm. moom la jiital ci parti bi. Mhm. waxoon ko ñëpp dégg ko. loolu nag fi ak amul ci yenn dirigeants yi mu taxaw ne du mii la jiital loolu day problème day am. parce que à chaque fois problème bi la koy indi mooy njiit contesté yi dafa bari président nangu doon a décider ni diw mii la jiital wala diw mii la jiital. loolu fii mi ngi am ci parti bi. guerre mexicain rek lay doon Mara Diop day taxaw ne daan ne man maay départ maay maay coordonnateur département keneen taxaw ne loolu nag nun am na loo xam ne ñun yàlla def nañu résoudre nañ ko au niveau des communes rurales de Diourbel du département de Diourbel parce que communes rurales yi booy xool ñoom ñëpp dañu dajale woon. ne Dame Diop mooy seen coordonnateur. agsiwul ci département boo agsiwul ci département Mbacké. département Mbacké comme euh, euh, euh, moom ger mexicaine la. comme kenn ku ne mooy. d'ailleurs sax réunion bi ñu am démb rek. ñetti concert amoon na. démb waaw kenn ku ne. loolu loolu dama jàpp ne parti buy màgg. parti buy yëngutu di màgg. faaw day am loolu. dana am ay choc d' ambition. maanaam tey eh non non dana am choc d' ambition dana am tey bentoo parti yii fii yii jot ngor gi. Mhm. di bentoo élection législative yii rek ngay gis dañuy dañuy dañuy kase wu parce que choc d' ambition day am da ngay wóolu sa bopp liggéey liggéey boo xam ne jàpp nga ne war nañ la mën a jox responsabilité. Mhm. bu fekkee joxuñu la responsabilité da ngay gis sa bopp. mais c'est tout à fait normal un parti bu yaatu buy di il faut dina am ay divergence Yo xamné ci biir parti bi day am Benen bi ci dess muy wàllu le ministre de l'agriculture man diko araf araftu nak. wax deug Yalla, on en a marre de cette ministre hein. ah, dama xamatul non non non non ma diko araf tu. on en a marre parce que c'est tout à fait normal parce que le premier ministre di disait que des contre vérité Yo xamné ni tay lepp lu mu waxone da ciy ci wat. kon yone la un ministre bu mu jël wëlbatiku keroog bi mu jógee ne way d'ici de peu de temps réglé nañ fi ba génn fi quatre-vingt-quatre nangam milliards génn nañ ay matériel agricole ma ne ko mais kii xanaa dafa dof matériel agricole bii muy wax barki dem la ko Macky Sall inauguré fii mu wëlbatikuwaat joxaat ñu ne euh, opérateur économique yi fay nañ leen seen nangami milliards. ah wala ñu weddi ko de am na dama ne weddi wuñ ko dañ ne fay da leen fay na leen fay na leen ba ñu soldé te bu ne. fay waaw déglu déglu ma wax la dama ne. xam nga yaa ngi ci état continué waaw fay na leen. waaw ba ñu solde ci nangami milliards. waaw naka te loolu amut dañoo am lu ñu leen dugalal. dafa wax ne fay nañ leen. am na loo xam ne des na ñu ngi koy. xool càmbar da dafa génn ne fay leen. am na loo xam ne fay nañ leen li ci des ñu ngi koy càmbar pour mottali. dama ne dañ ne fay nañ leen li ci de am na lu am na waxut sax am na lu ci des. man nañ koo koo xoolaat nag mon frère dama bëgg ñoom. Mhm. bu fekkee ne tey la dañu bëgg ne état continuité ñoom gëmuñu woon ne état continuité la te tey li nga xam ne président Macky Sall defoon na ko fi ci lañ continuer di ciy dem man dama jàpp ne ñoom dañu réer xamatuñ fu ñuy teg seen tànk beneen bi ci ëpp solo muy ma di la wax ne bu ma leen doon may zéro laa leen man keroog bi président Macky Sall toogee ci bopp réew mi dafa def prêter serment le deux. Mhm.

ci solution kéro bi Abdou mbay di génn. Mhm. dafa génn ak solution le 20 ba dafa génn wañi dund gi yépp mais ñi kañ lañ no waxoon leen fi Abdoulaye Wade bàyyil dafa bari nak ma dé Abdoulaye Wade taxaw na devant tous les sénégalais mune man dé buma togué toogee bu Macky Sall bu keneen bu ko yoru rew mi togué di ngeen am ñetti weer yo xamné état du ko fayu booba Macky Sall était un homme d'état xam xam fan lay dem xam nan naka lay def dem ay partenaire ay bailleur de fonds jappelé ko. pour mu mën a téye réew mi pendant trois mois ay réew yeneen yu ngi moo tax bu ma gisee ñuy dem ci réew yoo xam ne amaluñu benn njariñ ah. lu dul ñoom wax ba déggoo ba juboo rek mais ressource bu mën a dellu si ci moom réew yooyu amaluñu. waaw ah, njëbbal gi bu dee fekkee ne njëbbal gi ñu jébbal France lan bëgg a dagg rek. boo ko defee gis nga dama dama la wax ne gis ki ñu coloniser ci wàllu ñun am nañ indépendance ci wàllu koom-koom. ñi ngi doog am mais ci wàllu koom-koom ñi ngi doog am indépendance. déedéet moom ba tey amul ba tey ba tey ba am indépendance. maanaam aw tur fi nekk waaye ñi ngi doog am indépendance. Euh, sëñ bi ndax présentement bi mu ñëwee. waaw waaw rek waaw waaw ñëpp ngi doon xaar ay ay. moo tax moo moo moo tax dama ne ci wàllu économie. amagun ci indépendance ndax xam nga loolu mooy indépendance économie. Hmm. mooy li ngay li ngay soxla. Hmm. nga mën ko amal sa bopp. Hmm. nga mën ko liggéeyal sa réew sa bopp. te loo ñun boo xoolee li ñuy importé di ko jëli bitim réew di ko jëggaan moo ëpp li ñuy génnee autoroute Lac ngi ñëw loolu bu ñëwee mais loolu mi ngi ñëw da ne mi ngi ñëw waaw loolu ay waaw léegi da ne mi ngi ñëw kon na nga jàpp ne ba tey amugoo indépendance économique indépendance bi nga tax nag pour administration pour lépp ñu moomal suñu bopp di doxal suñu mbopp loolu bu depuis 1960 am nañ ko nañu bàyyi di populisme bi ñu nekkee ñoom naan woy dañu war a dagg suñu digganteeg France dañu war a mu France mënuñu dagg suñu digganteeg moom kenn ku ne dafa am intérêt boo xam ne mi ngi sa digganteeg yow. ok euh, noo gisee sorti Pa Diakhaté bi euh, ba ak euh, coow li ci am lépp parce que am na gan goo xam te si nii premier ministre recevoir na ko fi nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop def polémique boo xam te man jàpp naa sax jëru ko woon ndax wax dëgg yàlla am sa gan ngeen waxtaanee loo xam ne jàpp ngeen nii. du mas am loolu lan moo ci jar coow lu rëy ba ñenn ci activistes yi di ci génn di ci def wax jox xam ba yoon di leen fekk. xam nga loolu yëpp Ousmane Sonko moo ko indi. parce que xam nga lu tax Ousmane son moo ko indi Ousmane Sonko day dem campagne. condamné tout acte boo xam ne nii tey euh, ñooñu di bëgg a installé borom ñaari tur yi ñu ngi fi. da ko nag condamné di ko wax di fu mu toll di ko di ko di ko di ko di ko défendre. ba tey loolu non non bu ko nekkoon déglu loolu bu ca nekkoon. ta dafa am ñaar ñoo xamne dama nañ nañ ci bàyyi xel nit ki nga xamne tay dafa doon campagne ak di wut rew mi japp ne li injustice nga ñew di def injustice bobu tay progrès bu doon wara auto autosaisir rek hmm. gis nañ ko xamne récemment dafa yëkkati président de la république dagal ko saaga yak ko lu melni xam moy seen boy bobu di and ak mom damay fàtte turum lol mom euh, yëkkati ko saaga suñu président de la république procureur waxu ci. loolu mooy yéen a ko fi indi. moo tax moo tax a dindi mais d' accord ñun ñoo ko fi indi. waaw moo tax sénégalais yi sànq. waa déglu waa d' ma déglu ma wax la <laughs> loolu la ñu sénégalais yi reproché. ñenn yenn actes yi ci yu mel noonu. Hmm. la ñu sénégalais yi reproché. moom mu dikk mu wax mu doon wax ne boolu bu dikkee da koy saafara Ousmane Sonko da daa wax loolu. donc kon bu dikkee dellu gën caa pire que ñun. Hmm. loola dañ naan ban réew lañ de hmm. beneen bi ci des nga wax ko. Hmm. université dañu dañu interdit woon ne université bu ñu fa def acte politique ñoom ñëpp ñu toogal wax ko ñu xëyee tey mu ne toog université nag c'est pas le premier ministre qui vient c'est le le président du parti. li fa doon wax kon parti ba la concerné mais à nos grandes surprises ñu yëkkati fa ay kàddu yoo xam ne waxuma la Mélenchon moom la muy doxal di ko wax moom la moom moom fu mu dem moom la concerne fu mu dem am na mat ak fulla fayda goo xam ne lay mission dana ko def mais ñun nag li ñu war a mooy Ousmane Sonko lui-même kero ba Macky Sall taxawee ak le premier ministre euh, ak le le le délégué de l'Amérique hmm. ci biir palais bi ba mu toogee wax loolu dane ko hé dama ne seen réew nangu leen loolu ñun suñ leen ñu leen li nu li nu dut man du ñu ko def loolu ko Sonko de des na ba Sonko génn dafa dafa wax ne ba sonko génnee ci lolo dafa wax né ah. Macky Sall dawaa dafa dafa wara fermeté ci lii taxaw wëlbati ku delloo ci da dellu waxat né né Macky Sall day dafa dafa porter euh, dafa porter porter calendrier goor jigen lu gëna a lolo ci un président nga un président heure bu génnee taxaw na Nations Unies wax ko taxaw na fenen tay ma jox la ben anok anecdote gis nga aéroport international bi biñ koy défar mhm. bu Dakar bu ah, Diamniadio bi ñu koy défar mhm. ay lobby yu bari pare woon nañ pour jox Macky sàll xaalis bu du jeex pour ñu defar ko pour que rien que seen seen enseignement bi nga xam ne moom la ñuy doxal fii ci réew mi. ñu fexe ba ñu di ko dugal ci boppi xale yi. Macky Sall ne leen ñett sama réew loolu méngoowut ak kon bu ñu gisee keneen ku koy porté tey ñëw ba digg université Cheikh Anta Diop fi nga xam ne fi la ñu joxe xale yi xam-xam mhm. nga xam ne fi la ñu orienté xale yi nga jëw di foofu tenir yenn discours yi en tant que premier ministre toog te fem moo ko arrêté woo ko loolu damaa jàpp ne am na dama dama jàpp ne tontu bu ko gën a garaaw am na hey tontu bu ko gën a garaaw am na nam daa opposé woo di ci dee ci daa son da nga jam daa jënd glace bu baax jënd glace xam génn frigo la def dee ca def glass donc amna ci lo xamne ay realité de l'état ak politique mo leen xana acte de politique bi tax lan motax ngeen gis ni baat bi talo baatu talo taloore bi mu wax rek moom ngeen beug a jël yéen ñëpp euh, maanaam médiatiser ko mais biko am wax ne yeneen yo xamne ni mi ngi ci biir du tontu bi te waxu leen ko mais biko Macky Sall waxe da ko dak biko Macky Sall waxee dafa yëkëti kàddoom ne Macky Sall doit daf ñu wara leral ci question bi daf ci wara am fermeté donc te Macky Sall te tontu yam ca tontu gën a da fii ak même maa ngi fii nekk. Hmm. histoire la donnée rek ndax fii ak ba même fii nekk amu fi. donc bu ñu gisee mu jaxasoo ceeg moom bi mu nekkee mairie bi mu premier investisseur bi mu eh, bi mu dalal mairie de Ziguinchor. Hmm. ci loolu lay porté kooku ci loolu lay porté. Hmm. premier investisseur bi muy daal bi mu dalal fii ci loolu lay porté kon donc jàpp naa ne Ousmane Sonko boo bëggee. Euh, politique ak moom indil ko waxi démbam rek loolu yomb na ndax waxi démbam ak jëfi tayam moo ko yóbbu waar moo ko yóbbu vaar ko yóbbu ko vaar rek moom heure boo ko tegalee vaar lam doon wax démb du bokk ak li muy wax tey macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm li nu waroon wax jeexut waaye li ñu la ci waxtu jeex na jërë neexee sax fa la jeexee <laughs> euh, pardon jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax di di gërëm di gërëm euh, Mouride Info vraiment sag la fierté la ci ci ci bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ci région de Diourbel waaye bépp ndaw boo xam ne yaa ngi doon murit tey di ko di ko déglu man actualité benn murit info du ma raw maa ngi ci groupe bi maa ngi ci euh, à chaque fois que ma maa am ci yenn kii rek dama ci dama ci di di leen euh, sant ci initiative bi ngeen jël nga xam ne da ngeen di dem ci yenn kii muy mbégte mi Euh, vraiment ma doon gan gu njëkk. Mhm. jàpp naa ne nag dinañ leen sonal ci ci ci invité ma mbégte mi invité ma mbégte mi. <laughs> parce que nag sama première sortie ci mbégte mi. jàpp naa ne it aussi dina dana dana dana indi bës yeneen. Mm. dana indi ñeneen ndax sa euh, euh, nun noonu la ñu yàlla bindee. alhamdulilah di leen sant di la sant yow vraiment. ndax keroog dama koy wax dama naan nga am sa métier. di ko sagoo. di ko tiitaroo dafay fierté bépp ndaw boo xam ne tey ñoo la cay xetal heure bu ñu la gisee sa kàddu sa jëf sa yëngu-yëngu rek ci lu jëmale umma islamique bi ak euh, kii bi kanam maa ngi sant le PDG di suñu xarit mm. aussi ma diko faral di wax nak maak mom ño bokku keur yalla <laughs> <laughs> mom xamna limay wax donc di di di sante ñep di gërem ñep vraiment émission bi amna solo di joxat rendez-vous benen émission yo xamne ni japp na ni dina dina dina gëna ki jërëjëf euh, jërëjëf mara ñu sante la bax gërem la ñun ñi mbekté mu du jeex rek ñi am heure bu ni addu ngay tewlu waye tam heure boy addu ñuy tewlu parce que ma sha Allah euh, ndaw nga mais tam engagement bi ak dynamique bi ma sha Allah day taxaw suñu def soir yu melni suñu xel daf lay dacc euh, yag na no dajé ci ay milliers yu fréquentant yo xamanteni ni heure bu mu ñëwee gis nañ ci yow dal geek euh, taxawaay bu am solo bi te loolu rek lañ soxla ci émission bi parce que danañ l'essentiel dugg ci ngir euh, satisfaire euh, sunu mbokk internet yi mais bu yooyu yëpp jàll itam ñu sant la bu baax gërëm la di la jaajëfal bu baax a baax jërëjëf sëñ Mbacke Dieng DC Mouride point fa ñu ngi koy jaajëfal bu baax kon désormais xam leen ni daal ganu mbégte mi léegi fii la nee leen képp koo xam ne da nga loo ko lu nu xam la ci ñu ngi sant baax Abdou Salam mi nga xam te si nii mooy directeur bi ak ki nga xam ne mooy madame li suñu jigéen ñu ngi leen di jaajëfal baax soxna Awa Kane de personnel mboolem personnel bi nga xam ñu ngi ci restaurant Mbecté